temps yi yëpp télé yi amee ñu mbamb gi doy waar ci golfe sud lu ko waral du dara mooy juumte gu rëy gi am ASC golfe sud bandi dëkku fi ASC golfe sud suñuy supporter duñu ay bandi tooñuñu kenn yëf yi bu mu saana am li xale yi di naan simol day am topp ASC yi di toj ak a yàq waaye ñun ASC golfe sud tojuñu yàquñu nday leer dama ni ñañu jàpp sax si commissariat bi su ngeen demee seet du ngeen fa fekk kenn ku nekk Golf Sud beneen bi may wax mooy ñun waa ASC Golf Sud may laaj xanaa waa zone waa ODCAV yéen xanaa dafa am ay ASC Mamoudou ak ay ASC yi léegi nag dañu ne lépp li ngeen def rafetul rafetluñu ko ñun quartier Golf bii soo nañu ak mag ñi ak ndaw yi ak supporters yi ak ñëpp ne ASC Golf Sud n'est mêlé nii de près nii de loin à ces casses de ñun et on demande solennellement à la zone on demande à l'ODECAV on demande à l'ONCAV de lever cette sanction ñun dañoo qualifié pour jouer finale ñun te dañ ko war a jouer parce que lii ñuy def ni teguñu ko ci yoon am na ASC yu def lu ëpp lii te kenn sanctionné wu leen ba ñu leen di génne ci nawetaan yi ñi fi def li mel ni ñi ci tuumal ñii li ñii ñu tuumal li mel nii amuñu amande bi li mel kon ñun pour ñun amande bi day dañ